ginnaaw bi ñu faatee Elimane Thiam ci marché gar bu mag ci aljuma ji dëppoo woon ak le 1er juillet 2022 Xudaamul Xadim amal nañu opération de sécurisation quartier gare bu mag rawatina ci barab bi nga xam ne ci la ñu faatee woon ndaw li am fukki at ak ñeent. mais bi ñu jotee ndigal nag mu jëlee jóge ci sëñ Amsa bu sëriñ Abdou Lahad jaar ci sëriñ Basirou Coro wàcc ci sëñ Abdourahim mi nga xam ne moo ñuy commandé liggéey bi mu jox nu ndigal gannaaw bi nga xamee ne que drame bi am na. Euh, bi mu ñu wooyee xamal ne am na ku ñu fi rey gannaaw bi ñu rendre compte suñ am sam suñu ablaat wax ko ko mu xamal ni nu nañ dem saytu loolu biñ ñëwee fekk kooku ñu rey ko reyin bu ñaaw ti fii ci gaar bu mag muy xale bu am 14 ans tudd Ilimane Thiam doomi Mbay Thiam euh, sëriñ bi nag jox nu ndigal ni nu bis boobu na ngeen téye gaar bi maanaam na ngeen dem ña fa nekk ngeen jàmmaarloog ñoom ñu jógee fa loolu suñ am sax jox nu ndigal loolu nañ fa jógee carrément bu ko defee ñu téye gaar bi tamit ba li nga xam ne mooy wàllu agression ak wàllu rey ak yu ñaaw yooyu ñu bañ ko faa déggati. opération sécurisation bi nga xam ne moom lañ doon amal boole ci di fanaan ci bërëb bi jot nañ fi jàpp lu toll ci fukki defkatu ñaawteef ak juróom-benn fekk ci ñoom yamba cigarette sangara diluant ak ay ngànnaay opération bi nag Xudaamul Xadim ñu ngi ci àndoon ak waa police ak waa quartier bi. yàlla dogal na démb euh, fi la ñu fanaan bi ñu fanaanee ci lëkkaloo bu ñu lëkkaloo ak ki nga xam ne mooy délégué de quartier délégué de marché bi ñu fi teg muy Cheikh John ak ki nga xam ne mooy Baye no Fall mi fi nekk euh, lëkkaloo bi ñu lëkkaloo nag gannaaw boobu ci lañ def opération yi opération yi nag ñu lëkkaloo ko tamit encore ak ki nga xam ne mooy waa police ci ni ñu ko sëñ bi baaxoo di wax muy police ak gendarmerie ginnaaw fusion nu police la ñu lëkkaloo ak commissaire bi nga xam ne mooy commissaire Thioban ak ay élément am yàlla dogal na euh, ñoom ñu sécuriser fi nga xam ne fi la ki faatu nekkoon sapeur pompier ñëw jël ko def ci liggéey bu am solo ñun ñu fanaan fi ci biir boobu nag jàpp nañ fi lu toll ak fukki nit ak juróom-benn yoo xam ne identifié na leen ku ci nekk jël nañ say filiation ñeen ñi ñu ngi leen jàppe li nga xam ne mooy jëfandikoo gens produit sérologique li nga xam ne boo ko xëccee day dem ci sa yuur gi nga mën a rey nit wala nga mën a gaañ nit te doo ko tey jàpp nañ fi ñoo xam ne dañoo naan sàngara dégg nga ak ñoo xam ni jàppe nañ leen yàmba koo xam ne jàppe nañ ko suyen yàmba muy tux ak keneen koo xam ne jàpp nañ ko fekk ci moom poosam ay grain yamba yu bari ak ak dara ci yamba euh, jàpp nañ fi ñett ñoo xam ne ci yamba lañ leen jàppe kenn ki fekk nañ ci yamba bu baree boo xam ne toll na ci lu toll ak takk. mbooleem ñi ñu jàpp ci barab bi jébbal nañu leen waa police ngir ñu wéyal liggéey ci ñoom ci li nga xam ne moom la yoon santaane. ñu jàpp leen waaye ci ci lëkkaloo ak ndimbalul police ñu daal di dikk ak seen i oto ñu teg ko ci seen loxo commissaire Thioban heure bu ñu ko wooyee éléments yi ñëw taxaw. yàlla dogal na ñoom lañ bokkaloon sax ci guddi gi bu ñu nekkee fii ñoom ñuy wër di patrouille li nga xam ne mooy yeneen quartier périphérie yi ci biir loolu nañ opération ci sën yi fi ne ak fi nga xam ne ay salté la foo xam ne dañ faa miine woon yàmba def fa ay siso ak ay paaka ak lu mel ne pon ak cigarette waaw ak ay ay lu mel ne sàngara yoo xam ne dañ ko faa suul gannaaw bi ko bi ko waa xuddaamu yi saytoo li ci des mooy euh, li nga xam ne moom ay bitéeli sàngara yuñ naan la nga xam ne lii dalee leen fii lañ ko jaayee wala feneen lañ ko jëlee ñëw naan ko fi ndax loolu mooy tax ñu mën a def ñaawtee fii ñuy def ak li ñuy wax euh, euh, cigarette gis nga ko fi. Xuddaamul Xadim di kuréel gi nga xam ne mooy jàppale sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllum kaaraange ci li jëm ci Touba fas nañu yéene occupé barab bi ci ni nga xam ne noonu la leen ko sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Abdou Lahad santé ci barab bi nga xam ne moo nekkoon làqukaayu defkatu ñaawteef yi. fii nga xam ne tabax yu bari dafay nekk tabax yu yàq yoo xam ne dañ ko tabax amul kenn ku ko occupé kenn nekku ci. loolu muy nit ki bu amee euh, fu mu nekkul kenn nekku fa day wut fa kenn nekkul mu dëkk fa euh, seen matelas yi ñu doon tëddee mi ngi fi am na ñoo xam ne ci kaw lañ doon fanaan am na ñoo xam ne dañ doon kat nañ jël seen alal dégg nga loolu mooy li nga xam ne bokk na ci kon nag euh, war nañoo taxawaat ci wàllu sécurité ak kaaraange ñun nag sëriñ bi nee na ñu téye ko même bu dee tabaski fi lañ ko defee fi lañ koy defee parce que ndigal lañ doon wut ci ndigalul sëriñ Amsat am nañ ko mu jaar ci sëñ Basiirou Coro ak sëñ Abdourahim Fall moo di sant délégué quartier bii nga xam ne moo fi nekk bi ñu fi nekkee di fanaan ñoom ñëpp ñu ngi fi di ñu jàppale. ci fàttali bâtiment yi nga xam ne ñoo nekk ci marché gaar bu mag dañu ko tabaxoon ba noppi abandonné ko ñi nga xam ne ay defkatu ñaawteef la ñu occupé ko di def leen neex ci barab bi agressé ba ci faat bakkan